l'ancien champion yàlla ko yàlla yërëm première sortie bu Youssou Ndour mu tuddee boppam le leader du super étoile tey dafa indi mystique nag Youssou Ndour tey dafa indi mystique Bébé Diouldé pied gauche Youssou Ndour pied ku ne garde normal ku ñu dóor nag gisuma la mbaaw ku jël ku gisuma la baaw Bébé Diouldé moo ñu wan ginnaaw ndeysaan Youssou Ndour moo ñu wan kanam ndeysaan démb géej waaye am na ñaari ndam Sa Thiès daan Alioune Seye 2 daan mu des tey Youssou Ndour ndeysaan loolu stress la loolu sas bu rëy la sas bu rëy la troisième sortie ce week-end pour Guédiawaye après deux victoires attention riposte attention dóor daan waa et eh, Youssou Ndour xoolal li ngay def aha combat bi nag mi ngi door a commencé Bébé Diouldé ko ci xeex est-ce xeex boobu noonu Bébé Diouldé bëgg na ko mais xeex dafa war a jaar yoon ak les projecteurs dañ si war a bàyyi xel la pression du côté de Youssou Ndour c'est sa première sortie après le décès de son papa yàlla na ko yàlla yërëm repose en paix Père Balla Gaye après deux victoires du côté de Guédiawaye c'était Sa Thiès et Aliou Seye numéro 2. Aujourd'hui, c'est le troisième combat de Guédiawaye pour ce week-end. Le 26 et le 27 Youssou Ndour dem na jëli ko jàppante na ak moom Youssou Ndour jàppante bi bëgg jàpp na ko ku ne am na ngemb Youssou Ndour bébé Julle bébé Julle rasu na en ngemb taf na ko wéyale na ko ah Youssou taf na ko wéyale waaye bébé bañ na attention. Youssou Ndour qui va imposer sa force Youssou Ndour qui va imposer sa masse mais ndeysaan Bébé Diouldé dama gisee dafa toj gën a antene physique ak endurance loolu laa gën a gis ci moom mais Youssou Ndour booy xool dafa yokk volume tuuti dafa yokk volume door na door na attention tël laay la laa mbirub jinne ay waay mbirub jinne laa gis un Youssou Ndour plus un Bébé Diouldé ça fait deux lutteurs et qui va caxabal ku ne tànte na ko si ñoom ñaar ku ne tànte na galgal wala jaxabal ku ne tànte na ko ay tey sama put baa ngi bët sama put baa ngi xar oh loo gëj a def rek da lay gaañ waaye nag man est jëmuma mag Balès Kade attention plaqué na ko Youssou plaqué na ko Bébé Diouldé wéyee na ko Youssou daan na Bébé Diouldé laa kel mbot waa pep pep. victoire pour Guédiawaye troisième victoire pour Guédiawaye. daf ko mbot mu samp bopp bi ci suuf la ko mbotee mbot ba ci suuf la Sa Thiès Aliou Seye 2 Youssou Ndour égale victoires pour Guédiawaye merci Ablaye merci beaucoup à toute euh, la population de Dakar <laughs> Guédiawaye am na ñetti ndam ci benn week-end